tooñ na ma def na ma lii nangam nangam bala ngay condamné El Hadji Assane. da koy mais sa client moo ñëw. parce que tant que jot jotul convocation lu muy ñëw il n'a jamais reçu. de convocation ça c'est clair. mais spécialiste droit yi nee nañ juge bi mënul jël date retenir ko yéen vous étiez au courant. te a été au courant à travers. te jotul ci dossier bi yépp que procureur notifié na ko ne ko ñépp ñi nga xamante jot nañ seen seen seen convocation. loolu yëpp am avec avec accusé de de réception loolu yëpp am loolu amul benn commissaire bu nekk Ziguinchor. Mhm. moo bind benn PV. Mhm. antidaté ko o 11. Mhm. ni le 11 mai dem na kër Ousmane Sonko décrire kër gi fekk Ousmane Sonko ci buntu këram. mu ne ko dañ la convoqué tribunal joxu ko këyit déchargé ko dara. Euh, neewul aussi kii bañ na décharger comme ni ñuy defaree PV. Mhm. c'est-à-dire jox naa la pour nga signer nga bañ ma bind n'a pas voulu signer agent assermenté bu ma nee wax naa ko mu signer bañ na signer loolu huissier yi dañ koy def tous les jours. Mhm. ñëpp ko def tous les jours. donc loolu amul kayit bu ñu antidaté le 11. te ki nga xam ne moom moo yebal commissaire boobu le 15 la ni moom ñëw na fii kër Ousmane ko dakaar fekk ko fi. mu wax collègue am bi nekk Ziguinchor parce que xamoon na ni mu ngi Ziguinchor. parce qu'il paraît que le procureur a cette latitude là wax ak waa DIC waa DIC euh, wax ak ñi nga xamante ne moom mooy commissaire bi nekk Ziguinchor. oui n'est-ce mais dans le cas d'espèce. le oui. le mai. le 15 mai cest bi ñu nee suba la audience bi le 15 mai commissaire Adramé Sarr bu moom moo bind benn PV wax ni man dem naa kër Ousmane Sonko tey. pour jox ko convocation comme ni ma demee kër Ndeye Khady fekkuma fa Ousmane Sonko ma yëg ni mu nga Ziguinchor ma wax sama collègue commissaire bi Ziguinchor mu demal ma foofu loolu la quinze la ko bind def PV bi le 15. pourquoi vous vous êtes. lu tax allé au tribunal dans ce cas comme convoqué wuñ seen. yow di nga dem tribunal te convoqué wuñ la est que loolu ni nga ko mhm. même boo yëgee ni sax war nañ la àtte. nga yëg ko ci média yi wala nga yëg ko feneen. Mm-hmm. est-ce que di nga taxaw tribunal te jotuloo convocation. mais yéen ces avocats vous êtes pourquoi yéen vous êtes parti comme yéen seen client jotul convocation lu tax yéen ngeen dem maître. mais ñun dañu am yeneen affaire tribunal donc c'est normal que ñu ñëw xool ak mooy xew loolu lañ dem loolu kenn ñu mënuñu ko ah, reprocher la preuve bu ñu euh, génnee wax nañu plus de quarante avocats fu ñu jékki-jékki génn salle bi ngeen xam ni lu normal amu fa. lu normal amu fa. mais tribunal bu normal amu fa. mais lu tax ma dugg ci dossier bi mais. mais lu tax maître Ciré Clédor Ly wax li wax le juge lu tax maître Ciré Clédor Ly wax li mu wax wax li mu wax le juge ne ko il donne des assurances dañu renvoyer pour que cette fois-ci client bi dina ñëw. waaw mais loolu am na. non loolu loolu daf ko wax parce que dafa buggoon ñu renvoyer mhm. parce que ñëpp a demandé le renvoi xam nga yow munoo ni man maa lay layal. te man dossier bi nga xam ne moom laa la war a layal man dossier bi jotuma ci procureur jàng na dossier bi juge yi àtte jàng nañu dossier bi mais man mi la war a layal ñu ne ma kenn du ma jox dossier bi naka laa lay défendre looloo tax avocats yi génn quarante avocats fu ñu génne devant le représentant de l'ordre des avocats taxaw quarante avocats yi ñu wax wax wax juge bi ñii ñu ngi soog a constituer léegi léegi léegi léegi foog ñu renvoyer dossier bi pour ñoom ñu mën a am dossier bi jàngat ko on est en matière criminelle juge ba bañ xam ngeen loolu dara normal. mais le le dossier ba ku mel ni Ndeye Khady mi nga xam ne moom elle est présente. avocat mi soog a constitué mënuñu fexe ba ñu am dossier bi donc elle s'est retrouvée seule à être jugée ce qui est une illégalité totale. en matière mais le dossier donc ça veut dire que yéen yoroon leen woon dossier bi depuis du moment qu'on parle parce que tey je me dis su dee presse bi dem na ba jot ci ñu ne dossier boo xamante ne c'est constitué de 471 pages donc euh, ça veut dire que yéen aussi euh, ci yoon waroon ngeen jot ci dossier boobu à temps euh, les avocats la la partie avocats yi constitué woon dès le départ comme ñi mel ni man ñooñu jot nañ yéen jot ngeen mais la la vingtaine d'avocats yi nga xam ne ñu ngi constitué ce jour là d'accord jotuñu dossier bi